Eh, Sëriñ Tuuba Xaadim Rasul dafa masa woote ba ñu bari wuy si ba ñëwee mu tombal leen juróomi tomb ne leen ñëw leen ma yee leen ne leen nit kat bu faatoo dañ koy xaaj juróomi cër ku ne jël wàllam daal ne suñu borom tabaaraka wa taala nag moo njëkk jël wàllam dal ne ana juróomi cër yi ñu koy xaaj dal di jël loxoom bu tedd ba teg ci tomb bu njëkk ba daal ne ruux ruuxam ak yàpp yaramam ak yaxam ak alalam ak jëfam daal na suñu borom moo njëkk jël wàllam muy roogee ndax roo moom ku na xam ne ne mbirum suñ borom la wax na ko ci alquran ne ko yow yonent bi kat gaañu danañu la laaj mbirum ruu nee leen rek mbirum yàlla la yasalunaka an ruuhi qul ruuhu min amri rabbi wa ma utitum min al ilmi illa xalila nee na kon suñu borom mooy njëkk jël ak ruuxam moom daal di yóbbu daldi di jël yàpp yaramu waa ji jox sax yi daldi jël yax ya jox ko suuf jël alal jam fa bàyyi jox ko ña ko doonoon ne bu leen ko ci sant kat maa leen ko jox dal di jël jëfi waa ji jox waa ji kon waa ji amu ci lenn lenn lenn ci juróomi cër yooyu lu dul ay jëfam moo tax ay jëf lu mat a sellal la te suñu borom nee na jëf leen rek loo leen def ci lu baax maa ngi ko gis te danaa leen ko dencal da ngeen ko fa fekk wa ma tafaalu min xayrin yaxlamuhullah dellu waxaat ne lépp lu ngeen dawal ci aw yiw na ci seen xel dal du jaawaloo du réer dangeen ko fa fekk wa ma tuqaddimu li anfusikum min xayrin tajiduhu indallah kon nag képp koo xam ne nii kat xam nga lii dara waru la lurut di dawal fa nga jëm moo tax sëñ bay jaxate wax wax yu am solo nee na damaa dem fi ay sëg ma gis képp nit ne cundum ci la ak ay jëfam dama dem fi ay sëkk ma gis képp nit ne cundum ci bàmmeelam ak ay jëfam ma xam nag ne koo xam ne léegi mu jëm bu yeewoo dafay teel a jëm ci mbiram jógal jëm ci say mbir te bul toppandoo ñi booleeg tayeel ak gëmbeen ak gëlam lu nit fob di yóbbaale bàmmeel koy fajal lor lu dul loola fajtil lorom te ak jur aku nit ku dee doo ko fob di yóbbaale faggul ci sa jur ngërëm te mboolem lu nit saytu yàllaa ko fab abal ko te buy dee mu nangu yëfam liggéeyal ci say yëf te wut ci njariñ lu jar dem ba say yëf te laq ko ci ndam ku xam dëgg loo am balaa jee nga am ca loolee lurul nam ma ja ndaxam xarit lépp loo saytu jaamoo ko yow ku def nii bu bis baa mu bég ciy jëfam kon nag lépp lu ñu yàlla jox nañ ko ko delloo nañ ko ko jaamoo yàlla def ko ci lu baax euh, ñoo ngi santaat mbokki jullit ak mbokki taalibe yi bu baax ci jàppale gi ñuy jàppale waa daara Hikmatul mi te lépp jëm ci rek lu ñuy dawal ëllëg ngir ñu fekk ko ci sunuy bàmmeel ak ñu fekk ko ci barsaq fekk ko tamit jannatul firdawsi te mooy lu jëm ci wàllu jàng ak jàngale ak yare ak dimbalante ci sunu biir ci ndigalul al cheikh Muhammadul Muntaxa afisahullahu wa raa di waxaat nag mboolem waa daara xikmatul yawmi rawatina ñi bokk ci association bi te am carte membre kenn ku nekk na feeñuwaat joxewaat numéro ñu dugal la ci numéro 5 bi ndax booba dañ ko beral waa association bi rek ñu nga xam ne nii am nañ carte te weer wu dee ñu barkeeloo dara loo xam ne nii dafa jëm ci daara ji daara ji it ñi ngi ci li ñuy ñaan moom mooy ñu weesu ko ba def yeneen i daara yeneen daara ba mu daj Sénégal ba daj àdduna loolu mooy suñu yitte mooy suñu yéene ngir liggéeyalee ko Serigne Touba liggéeyalee ko lislaam liggéeyalee ko itam jullit ñi ndax bu ëllëgee yowmal xiyaam ko Serigne Touba nee na ña daan liggéeyal jullit ñi lu njàq lu njàqare ga tartar ñoom duñ ci bokk ndax suñu borom dana yónni ku leen woo ba ñu wuyu ñu ne leen ñëw leen tàbbi àjjana ci lu gaaw te kenn du leen xisaab kon nag loolu rek lañ ci jublu ndax xam nañ ne àdduna luy jeex la te lu gaaw la te luy romb la moo tax euh, ñu ñu ñu ñu yéene sunu bopp ñu yéene ñëpp li ñu yéene sunu bopp loolu moo ko waral euh, kon nag.